daal ci laa nekk parce que koy yéene liggéey rek ba keroog nag may uji suñu borom. gis nañ la liggéey bi nga ànd ci Pastef. Mhm. noonu ci ko defee euh, judd ci murit màgg ci murit gëm sëñ Bamba ak Cheikh Ibra euh, di liggéeyal soxna jaara loolu daal dañu ciy juddu màgg ci. Euh, Touba ca kanam ñëw fekk ñu ci ñu xam ne Touba ca kanam liggéeyal sëñ Bamba rek ko tax a jóg sëñ Abibulaay Mbàkke mi ko jiite liggéey sëñ Bamba rek ko ñor. ñu ànd koog moom di liggéeyal Serigne Touba rek. xanaa yëg-yëg bu foor rek ndax boo toogee ba ki fi nekkal sëriñ Touba jox la ndigal xool li ngay liggéey ba naw ko ba xam ne yow mii lii nga nekk lu pëstee fu la lu dëggu la mu yëkkati lu toll ne dëkk bi jox la ko ne la nag bugguma fee gisati benn tooy-tooy loolu yëg-yëg bu rëy la def ci ñun murid yi. mboolem ku ne ci Touba ca kanam rek euh, murid yëpp sax la def yëg-yëg ci ñoom waaye rawatina nag waa Touba ca kanam. yëg-yëg bu rëy la def ci ñoom bisu tey bii niñ ko préparé pësteefu rek ak dëggu rek ak laxasaayoog takk suñu ndigg rek doolee doolee doon ay Baay Faal doolee doon ay murit sëñ Bamba di liggéeyal sëriñ Touba rek loolu daal moom lañ ko pare ba fi mu nekk nii fas yéene jaay carte yi ndax karti yi rek moo yore liggéey bi ci loolu daal lañ nekk rek ah loolu moom bari na moom kenn mënu la ko wax ndax murit yi moom ñëpp a bëgg sëñ Bamba fii ku fi jaar oto bu fi jaar rek daanaka bu ñaari oto rombee ñetteel ba day dagg gis nga sànq soxna si fi jaar oto bi ñëpp a dagg man sànq am na ko taxaw léegi ne ma daggal ma njëgu 30 000 ma daal di koy daggal njëgu 30 000 xam nga kooku am na mu yëg ci boppam yëg boobu nag ñëpp la ko def waaw dañuy ñaan yàlla daal sëriñ Bamba yàlla na nu dooleel daal kattanal nu kattanal sunu njiit mhm. mhm. euh, mitit boobu nag du ma ko yëg ndax soxna Ayda Ndiaye Badaloo moo ma ko toqee daf ma toqi loolu ci liggéeyal sëñ Bamba toq ñu ci liggéeyal soxna jaara ba maanaam duñ ko yëg booy liggéey da ngay ànd ak xaal maanaam da ngay bég ba yow booy liggéeyal sëñ Bamba doo yëg dara fi mu ne bi ñu xëyee ba tey ndékkiwuñu waaye dañuy liggéeyal sëñ Bamba ba fi mu nekk nii daal yëguñu dara booy liggéeyal sëñ tubaa doo yëg dara booy liggéeyal sëriñ Touba doo yëg dara doo yëg dara dara lu lay metti doo ko yëg ñun daal ñun daal ci loolu lañ nekk